voilà donc euh, ñu bàyyi Fatou Ka mu développé li nga xamante ne jot na ko énuméré ci ndorteelu émission bi. waaw colonel comme ni ñu ko annoncé tout à l'heure dañ koy commencé ak euh, ki nga xamante ne mooy professeur euh, Songué Diouf nekk fële ci émission jàkkaarloo bi am TFM alors moom émission bi passé nag dafa waxoon benn wax boo xamante ni après dafa jóor ay coow yu bëri ci réseaux sociaux yi ñu bëri di ko ñaawlu muy mbirum viol bi ñu bi ñu doon wax foofu ci seen plateau moom mu wax ne que femmes yi dañ leen di violer. parce que des fois ni ñuy soloo mhm. mooy pousser à ce que xale góor yi di yegg si ñoom ak yu ni mel mu nekk loo xamante ne dafa naqari woon ñu bëri alors moom nag def na benn sortie moo benn vidéo boo xamante ne nii daf ko publier waa Sénégal reprendre ko mu ne moom su waxee loolu c'est pour ramener les femmes à la raison ñu xamaa seen bopp xam ne que ñoom ah, dañoo dañoo am valeur euh, tamit euh, waruñu leen waruñu waru ñoo def yenn colin yoo xamante ni daf leen di perteloo li nga xamante ni mooy seen valeur te dafa dafa doon wax aussi en tant que père de famille en tant que éducateur en tant que professeur mais nag li ko dal mën a dal ku nekk parce que moom homme public la te d'habitude ñoom dañu jël seeni ay wax di ko déformer nee nag ñoo ñu jël waxam déformer ko ba comprendre ñu li mu bëgg a wax mu ngi leen di mu ngi leen di baalu àq aussi nee na bu ñuy sénégalais yi bu jëlatee benn propos di si wax ay wax yu ñaaw nañ xool ba xam lan moo nekk derrière lan la bëgg a wax foofu ñu analyser propos yi avant ñu koy jël di ko déformer. je pense que euh, damay d'accord ak moom xam nga wax. nit ci dañuy am tendance di jël wax di koy euh, manipuler boo ko manipuler dégg-dégg moo am solo wax dégg-dégg bi am solo man je pense que ni mu waxee euh, c'était ça mooy que xam nga euh, dëgg la xam nga dafa am ay ay ay colin yoo xam ne vraiment day day day xam nga xam nga góor góor la rek nga góor bu la nga yooyu mën na provoquer def vraiment créer yenn yi moo tax léegi nag moom li mu bëgg mooy que dégg nga euh, nit yi xoolaat jigéen ñi xoolaat seen solo. solo boo xam ne bu kii la euh, dégg nga euh, boo xam ne bu noor xam naa waxam la ñu comprendre rek. man je je ne suis pas d'accord. coach ah kon nag moom la nag non c'est que xam nga man. xam fu may waxee. man damay wax ak moom li mu mujjee wax. Uh-huh. que moom. waxam c'est pour éduquer pour nit yi di xam ne ñuy solo. waaw man loolu laa ko man je suis d'accord sur le fait que souvent Sénégal dañuy ñeme détail wala que des fois dañuy yàkkamti nit wax pour ñu tontu. Mm-hmm. mais on l'écoute pas mais dañuy yàkkamti mu pare rek ñu tontu wala ce genre de choses mais euh, jigéen bu nee déedéet déedéet la boo ko forcé c'est un viol te jigéen même si elle est tout nue ça ne te donne pas le droit nga violer ko. donc mënoo jël habillement. nga jël ko comme prétexte que nii mu solo moom moo tax ma egg ci kawam et que c'est pas normal que moom euh, ki violé ñu tëj ko ku góor ki ñu bañ ko tëj. je suis pas d'accord avec lui. Non. je pense que ce qu'il devrait faire. c'est que moom professeur Songué juum na. nit di nga def neuf yu baax. benn jour nga xëy par erreur nga def benn bu bon. nit ci jàppee jàppee la ko peut-être loolu moo ko dal. mais il doit s'excuser. waaw non non doo dégg dama la dama ne moom moom li mu wax man fii ci wax bii xam man affaire bi man euh, kii wu ma mais lii euh, Fatka wax laa wax dama ne il s'excuse que waxam on l'a pas son idée comprendre ñu ko loolu laa wax loolu laa wax man mais man néew ma que moom wax na dëgg jigéen ñi dañu wax a def nii non non loolu c'est pas une raison à que jigéen ñi nangam dañu wax non non non parce que bu bu bu nekk dañu war a ay conseil na jigéen ñi xoolaat seen habillement il en a pleinement le droit nit la koo xamante ne on le respecte de par lu bari yu baax yépp yi nga xamante ne def na ko ak yu bari yi nga xamante ne jàngal nañu ko mais comme je l'ai dit tout à jigéen bu defee taatu neen maa ngi jéggalu ci kàddu bi di doxantu ci mbedd bi sax c'est pas une raison pour que góor di ko violer sous prétexte que peut-être moom moo solul yére je suis vraiment désolée et, plus effrayant même que propos yi nga xamante ne moom moom la soulever peut-être am na incompréhension man je je yenn jigéen yi nga xamante ne dañuy ànd ci li nga xamante ne moom la wax parce qu'on a vu ay jigéen yoo xamante ne ñu ngi ñu ngi jéem a expliquer propos euh, professeur euh, Songué ah, vraiment c'est ah. choquant parce que am na fi jigéen yoo xamante ne dañu xaru parce que dañ leen violé am fi ñoo xam ne seen àdduna fa la jaare yàqu am ñoo xamante ne ci la ñu suuree góor ñii nekk lesbienne yeneen ak yeneen après ce sont ces mêmes femmes yooyu toog ñooy toog di seetaan ci télé bi ñu ne leen ok vous avez été violé mais benn côté c'est de votre faute non non non non non non non non ku ñu violé ah, loolu àdduna du neex ba ñu ne euh, kii violé nañ ko rek ah <laughs> du wax loolu c'est pas une raison mais dama ne moom par rapport ak moom lu mu wax son idée pas bien compris mm-hmm. waaw laa dama ci ànd ak moom mais c'est pas du tout une raison ba pare muy cautionner viole yi di am loolu la d'accord loolu la ko ci waaw moo ko. d'accord alors dañuy jàll ci euh, ki nga xamante ne mooy Mariam Sy ah si Sy man euh, mannequin ñu xàmmee ko toor ci ci yenn défilé yu mag yi alors moom nag dafa doon def euh, interview ak ñi nga xamante ne ñooy waa Pikini production ñu posé que la question bi nga xamante ne mooy est-ce que est-ce que c'est normal ñoom suñu nekk ci ci coulisses yi ñu nekk def soutien-gorge ak slip góor ñi def caleçon ñuy xoolante noonu alors moom na nee loolu du du dara amul benn amul benn problème ñu nekk à moitié ñuy entre ñoom euh, góor ñi ak jigéen ñi parce que foofu nee nag kenn du tal kenn du tal sa morom ñu ngi yàkkamtiwaat euh, solo pour demaat ci podium bi pour mu am benn mu bañ a am benn écart ci ci ci ci temps bi nee na loolu du dara bu ko bu ko nit ñi bu ko nit ñi diaboliser liggéey la et puis duñ duñ ko tal sax kenn du xool sa moroom bay xam que kii soutien la sol ak silip wala kële euh, caleçon la sol moom maa yem si loolu mbër mi di Lac de Guiers 2 ah, moom moom ba tey mu ngi mu ngi ci ci ci a euh, mbirum combat am ak Modou parce que euh, kàddu yi mu doon yëkkati après combat bi di wax que gouvernement lamb ji la doon bëreel jural na ko li nga xamante ne mooy benn suspension waa CNG suspendre nañ ko un an boo xamante ni dina ko toog ci du bëre maanaam mars 2019 moom la dëgg si la amaat droit euh, ñëwaat ci ci ci arène bi mu nekk suspension boo xamante ni aussi ñu bëri ñu ngi ko doon xaar vu kàddu yi mu doon yëkkati di ko teg ci kaw euh, CNG après combat ak Modou Lo. mais un an c'est pas sévère coach. un an sévère. non non mais attends. Eh, si ndax dafa sévère. waaw. c'est euh, ah euh, waaw yi di am ci sport. sport nanguwu ko. sport moo nangul yenn wax yi kon nag dañ koy arrêté il faut doy la man parce que dafa yéex a génne sanction bi. Ah. da ko waroon a génne bi wax bi muy doon ko non mais attends daanu na il attaque des gens. il attaque le CNG dafa mel ni rek tey jii benn jour jaraaf na nii rek attaqué fédération ah fédération football day toog di xool du ko xool da koy sanctionné ah woo fële en Europe entraîneur yi interview gars yi dañuy gars yi interview yëpp dañ koy enregistré la commission la dafa koy bu paree xool et que xanaa gisoo temps yi ne na yi joueur bu ñuy wax xam nga parce que dañ leen daan jàpp dañ leen daan ñoom dañ daan wax dañ daan saayee eh? gars yi indi ay ñoo xam ne ay spécialiste lañu loo boo boo mii nga sëgg xam nañ ne gars yi sanctionné lañ parce que loolu la écart yi di am dama ne kon nag tey ji un an ça lii day war ne comme euh, CNG fii man dama ci kontaan ak moom ah waaw kontaan naa ci si ak moom li mu def nii da pour créer parce que ci làmb ji da ciy dégg lu nekk. alors bu ñu <laughs> jógee ci moom Lac de Guiers 2 ah dañuy jàll ci euh, ki nga xamante euh, bi Wally Seck ah ci soirée sargal jigéen bu mu doon def euh, fële ca ca Grand Théâtre am yu bëri fa am mais aussi ñu nemmeeku ko ne. ci biir soirée bi dafa woy ba si yàgg daal di rendre hommage ki nga xamante mooy yaayam di jaaga hommage bu foor nag parce que da ko offrir li nga xamante mooy 10 billets Màkka dal di ko wax may naa la ko yaay xool ñeneen ku la neex koy àndal nga dem ziyaare yi ki nga xamante mooy gën gi mbindeef mu ne ko mu lancé ko message bi si ne ko tàmm nga su ma la joxee ne la nga dem Màkka nga ne doo dem mais cette fois ci maa la may 10 yow nga dem ak keneen ko bëgg a àndal mu nekk loo xamante ni aussi bon ñenn ñi applaudir na ñenn ñi aussi comme d'habitude ŋaañu nañ ci aussi. waaw waaw waaw damay laajte waaw ñi ŋaañal lan la ñuy ŋaañal. ñëpp dañuy ñaan ñëpp dañuy ñaan ñëpp. sële yeeg ñaan ñi wu ko wane dafay wane yooyu noonu yooyu daal lañuy nekk. mooy ñi nga xam ne dañuy xëy di ñaan ñi suba ba pare man e, man bu ma amee publiquement ma ne sama yaay may naa la li maa ko def publiquement. dañuy dem Dakar Buzz daal di jël ki nga xamante mooy Makayta bu groupe euh, Takefa alors. nekkoon euh, membre membre bu bu remarquable ci li nga xamante mooy groupe Takefa alors moom nag dafa quitté li nga xamante mooy euh, groupe euh, groupe boobu di Takefa ah mu nekkoon groupe boo xam ne ñoom ay frères et sœurs lañ woon ñu ñu bokk ndey mu nekkoon si aussi la seule femme ci biir groupe boobu alors li li tax nee nañ mu quitté groupe boobu mooy dañoo am amoon li nga xamante mooy un différent d'orientation musi musicale loolu moo tax mu quitté groupe boobu di Takefa abandonné ay frères gannaaw loolu sax aussi dafa démissionné ci poste présidence euh, boobu noonu di association Care Albinos voilà moom moo nekkoon présidente bi mu démissionné aussi ci post bi nee nañ nag euh, ses def nañ lu ñu mën pour téye ci li nga xamante mooy groupe bi moom mais moom elle a préféré quitter dem euh, def li nga xamante mooy carrière solo mais n'empêche nee na elle a attaqué fa dans le sang. xam nga ne naan gis moom xaw ma lan la. Mhm. musique nga gis. maanaam ñu bokk di ànd di mu yàgg. raar na de. mais quand c'est c'est la même famille d'habitude dañu séparé wu. c'est comme les frères Guissé c'est comme groupe euh, d'Abrels. ñëpp ah. dem nañu mais frères yi lañu fa bàyyi. souvent pour pour ñu bokk famille. ñu séparé waaw d'accord waaye nag euh, euh, c'est pas bon. mais dama ko seetlu ci milieu musique. da ngay gis ay ñoo xam ne ñoom ñoo bokkandoo di defar ba mu yéeg ba kii aw nii. bon ñoom ñoo am seen il faut dire parce que moom ni mu ko waxee man xool naa ko ni mu ko waxee bon euh, orientation musicale peut-être moom moom li mu bëgg. ak ñii li ñu bëgg a bokkul mais man je j'invite ses frères ah ñoom ñu toog ak ñu wax ñu laaj ko ban ñun ban orientation musicale la ñu am boo xam ne arrangé wu la. ñoom ñu xool parce que mën nañu ànd même sax parce que euh, maa ngi koy wax sous le contrôle de kii même sax mën ngeen nekk euh, ay musiciens doo leen am ay. oriental doo leen bokk ay kii mais mën ngeen bokk ku ci nekk di jouer sa jeu. ak yow noonu la. ah dañ koy ñaan rek ah mu groupe bi ñëwaat. parce que maa aussi dafa ne comme ni ñu koy waxee xorom la ci ci ci biir ci biir groupe bi. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. voilà dañ koy dañuy dañ koy jeexalee ak ki nga xamante ne mooy dëgër di papay euh, Boy Niang moom aussi mu def benn sorti après combat Boy Niang bi mu def révélation parce que nee na normalement ab euh, Boy Niang dafa waroon euh, bàyyi bëre loolu loolu la ñu. loolu la ñu prévoir woon après combat ak Sa Thiès parce que booy Niang dafa nekk koo xamante ni dafa mën boxe te euh, aussi ci box boobu muy pratiquer ay italien gisoon ko si daal di ko wax pour mu ñëw Italie rejoindre leen bàyyi li nga xamante mooy lamba ji ñu defal leen proposition boo xamante nii ñoom gis nañ mu accom ñu ñu waxtaanoon si daal ba mu waroon arrêté li nga xamante mooy bëri su bëree ak su paree ak Sa mais li tax loolu jotul am mooy que ni yaayu Boy Niang dafa d'accordul que doomam bàyyi lamba ji di dem di def boxe li nga xam ne fële ca ca ca Italie mais nag nee na moom euh, dafa rejoindre rek ki nga xamante mooy yaayu Boy Niang ci décision boobu parce que nekkul moom rek moom moo ju Boy Niang yaay ji aussi euh, parent wam la donc rejoindre nag si décision boobu Boy Niang va rester dans l'arène continuer li nga xamante mooy bëri ah nee naa man de dama dama ci eh, dama ànd ak yaayu Boy Niang parce que eh, ci bëre de. Mm. bëre Sénégal moo ëpp xaalis boxe. Mm. Ah, waaw boxe Italie. boxe Italie professionnel eh, balaa ngay atteindre yenn niveau yi ba am yenn xaalis yi day yàgg de. Mm-hmm. c'est pas c'est pas aujourd'hui nangam je pense que bon comme que moom man par contre man. li ma bëgg booy ñaa def. jàngi na jàngi na continuer jàng. jàngkat la intellectuel la. Mm-hmm. bu gën nekk avocat mun na ko nekk ba léegi. na jàng jàng dafa am solo. Mm-hmm. laam eh, kii eh, sport nii eh, kii bu gàtt la. Mm-hmm. na dem jàng. man loolu laa dama koy j'invite booy ñaa bëri mbër waaye nag demal jàngi demal jàngi. damay continuer sa jàng waaw. c'est vrai que ñu bëri sax loolu loolu loolu lañ koy wax. parce que on se rappelle benn combat wam non pas benn combat wam sax benn saison bu mu defoon année blanche année blanche. waaw ko la moo tax mu dafa doon préparé bac. ñu bëri applaudiroon ko ci loolu je que ñëpp aussi naw nañ ko ci ci côté boobu. donc na dem jàngi ko ñu ko ko ci waxee. na dem jàngi boo ñaan dama nga jàngi. boo ñaan du dama <laughs> te tamit dëggool tamit xaaral nga may ma foofu rek dëggool papam je pense que euh, bu moytul. Mm-hmm. li daal euh, Lac de Guiers mi dina ko dal mu ngay wax rek moom tamit. Ah, excès de communication. mu ngay wax. mais moom nekkatul il est plus actif. comme waaw mais non non mais attends c'est mënul am sanction non moom mooy kiw écurie bi. waaw ah, responsable moral écurie bi la. mu ngi wax rek de parce que wax na fi dugal na dugal na euh, Moustapha Gueye. Mhm. xam nga tey yow boole woo ko woon ci kii mais dugal na Moustapha Gueye parce que léegi rek day mel ni rek Fass. ak. Euh, loolu dara nekku ci course. waaw d'accord waaw d'accord waaye ni ko gars yi di gisee xam nga da ngay boole nit ak nit. c'est comme Ama Balde maa ngi gis démb vidéo bu circulé où il dit que Balla Gaye 2 mooy papa euh, lutteur yi ku ci nekk ak li nga sentir. moom laa lay expliquer dama ne. Euh, waaw am na wax nga wax wax moo doy wax. waaw bu fii professeur boobu li mu wax. gis ngeen fii euh, Lac de Guiers kii dañu kii ko wax na euh, kii am na victoire bu am solo parce que victoire bu rëy la bi mu am victoire bu rëy la et euh, mbërëm di doomam bëri na bëri bu rafet bu réfléchi boo déggee Sa Thiès sax mu ngi koy reconnaître que il a fait des erreurs réfléchi kon nag waaye nag dëggoon waaw mu ngay wax muy noonu daal ñu leen di ñu leen di ñu leen di tàggu di remercier yéen ñu toogoon a jàkkaarloo ak ñun li ñu li ñu seetaan